nan yegg ñoo doon nan yegg ñoo personnalité xamal leen ne diw baax ba mel ndax yow vraiment sama diggante yow samay doom war nañu mën a ginnaaw bi ñu dalalee Oustaz Alioune Sall jaajëfal Imam Ahmad Dam ci xaaj bu njëkk bi ni ñu ko baaxoo defee ñaareelu xaaj bi ñu ànd ci ak Oustaz Alioune Sall ñu des ci ngoon bi lépp lay doon incha allah. jaajëfal bu baax délégation yi nga xam ne teew nañu yëpp bari na ci yoo xam ne jot naa jukki ci suba am ci yoo xamante ni ñëwaat nañ ci diggante bi danañ ci ñëw ci biir waxtaan bi ndax li ma leen bindoon daa mel ne dafa réer Serigne Omar Ndiaye ma nga léegu saat bu France teewal fii waa soppee si defem yi nekk diaspora sëñ Moustapha Sylla moom itam fële la nekk France moo yónnee ndox mi léegi bi ñu demee di àddina ñu indi ci lu bare bari loo xam ne moo ko jàppale ci bi. macha allah yàlla ko yàlla fay. ak kilifa yi nga xam ne teewaat nañu ci ginnaaw bi yëpp ni ñu def mooy bàyyi Oustaz Saliou Ngom mu dalal mu ubbi Oustaz Alioune Sall lu jiitu loolu dañu woo benn xale mu jàngal ko alquranul karim am na ay xale yu war a def benn prestation bu ndaw nee nañ dalale ko Oustaz Alioune Sall ñu jox leen ñu def ko rek ci ay minutes yu gàtt ñu dugg ci programme wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid din salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen masawu coono eh, fas yéene présenté suñu bopp comme que waxtu bi dafa xaj te lu bëri war na si ñun ñu ngi jógee ba Mbuur campement Ngégo eh, tudd troupe Tektal Euh, yaay Yacine Ndiaye doon suñu yaay li tax ñu gën a sacrifice ñëw moom moo tax ndax gàllankoor yu bëri moo ñu dab si bi am na ñoo xamante ne sax ñëwuñu ñu ne comme que ñun ñii rek ñoo ñëw ñu ne ñu def prestation bi rek bu ko defee ñu yeeweeku incha allah. xale yi ñoo lay bégee ñoom ñoo lay daal. dablu yu am solo te am njariñ si ndaw ñi suñuy kàddu ngir bàkk suñu réew réewu teraanga lay bëgg kañ réewu teraanga lay bëgg bàkk manigat man dëkk suñu réew la fekk baax diine dafee sax suñu mag ñu baax ña tax suñuy teel ba ku mos dañ ne ux cosaani réew mi lay bëgg wax ni bu njëkkaan dañu daa cax junju aajowutoon di wax ñaari sër ba ñett dara mbuba mbaa ndoket sabadoor dara lii la suñuy maam xamoon jubanti sa doom sa doomi moroom bilaa coow di am jom ngor fullaak fayda dignitéeg diin xamoon seen cër daa liggéey def seeni kër xër si daa def li leen war sàmmoon kàddu bu jur njaboot ga ñu yar bu aajo war ñu jël yar xooluñu woon maa baaxe sama cosaani réew bépp ndaw bu bañ a réew ku ci sax dinañ la naw soo amee doo beew say ngëneel dana law ñu di ko fàttaliku ba faw magu réew mi ëllëg ngeen bañ a réccu ni ku wàcc sa jàmm ak salaam balaa nga kaa xam ca joolaa séeréer ba séeréer baak tukulóor ba saraxulle baak soose ba ñu rombante bay kalante mbaa feet jot ba ñuy baalante àqaaka saafonte feeñal seeni mbégte lii di firndeel ne suñu réew réewu jàmm la suñu mag ñu baax ñi setal nañ tool yi dénkuñu illeer yi buñ ko booyal nañ leen di ñaanal maytoo ñaawal fas yéenee rafetal jéem saxal njub gi ñuy rawal ngalawaay ñun ndawi réew yi bu pusa bi mujj si ñun réer nañu takku taxaw ñaanal suñu Sénégal yàlla musal ñu ay te saxal fi jàmm ak teraanga bi ñu xame réew mi macha allah tàccu leen xale yi bu baax a baax jërë ngeen jëf macha allah jërëjëf jërëjëf ñoo ngi jégalu bu baax ci nuñ leen daggee problème mu waxtu waaye teewaay bi rek rëy na ci ñun lool bàyyi ko ba Mbuur ànd ak Seyda mooy jàngal jigéenu Ali Imran yi ci groupe WhatsApp bi bu Oustaz Alioune Sall bukkee itam moo Oustaz Saliou Ngom ñoo koy wóoru te daara ji ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax Oustaz dina jot ni teewaayu waa cellule Ali Imran bu Bérésia euh, Aba Cissé soxna Maam Kewe ak euh, soxna Atou Mbène ñoom teew nañ ci teewal ci cellule boobu ñoo leen di dalal bu baax a baax di jaajëfal bu baax itam autorité yi ci seen jàpp ci gis di ñoom it gis ngeen ne sécurité bi doy na te ñoom ñoo leen yabal ñoo ngi leen ciy jaajëfal di jaajëfal itam suñu mbokki sàppoor yi ak mboolem ñi nga xam ne ñu ngi jàpp ci bis bi ba di fàttaliwaat ñu bëgg a topp euh, conférence bi en direct mën nañ ko euh, xool ci Touba Vision ñu ngi koy def en direct jamono ji nga xam ne ñu waaw ñu dox sa Saliou Ngom mu daal di dugg ci programme